président de la République daf ñoo joxoon audience ñun département de Mbacké bu demee mu laaj ñu ay xalaat xalaat bi ma laajoon mooy nan laa mën a def ba mën a gagné département de Mbacké surtout commune de Touba bi nga xam dama koy perte chaque jour lama ko ca leeral lépp mooy président kenn natam leen ne def nga Touba ay liggéey yu am solo li ci mujj rek mooy hôpitalu Cheikhul Khadim bi nga xamante ni ay centaine de milliards la nga def ko Touba te mënoon ko def feneen ak feneen ak feneen la ca topp mooy Ila Touba bi duma ko tuddati ndax wax nañ ko waxati ko ma ne ko la ca topp mooy li nga def ci forage biir Touba sotti ko ci ay poste courant bari na bari goo xam ne nii dafa tasaarewul ci biir sancaan ndax sancaan ci boppam problème bu ñu am ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, waa waa APR sancaan moo leen ko teg ndax ni leen ko tegee mooy sancaani yi gu ñu seen bopp ci Macky Sall parce am na sancaan yoo xam ne naam am nañ courant am nañu ndox waaye dafa doyul am ñoo xam ne sax amuñ am ñoo xam ne sax jaaruñu ci te boo xoolee Touba 500 mètres bu nekk forage ci biir commune Touba loolu mun naa ñàkk dama jàpp ne tey bu fekkee loolu bu ko président indi ci dëkk bi dañ koo xelaloon na ko yóbbu ko ci biir sancaan yi sancaan yi mënte gis seen bopp yaakaar naa ne kon président jafe-jafe bii du ko am la ci topp tam mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu courant bi dem dinaa ci dinaa ci wax parce que courant bi Touba ku ne xam na ne président def na fa lu bari waaye courant bi la ma wax ba tey rek dafa yem ci as rumbal soo xamante ne nii dafa génnul dem ci ñi ko itoo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg muy sañcaane sañcaane amuñu yoon sañcaane amuñu ay hôpitaux sañcaane amuñu dara projet président di joxe Touba ci biir Touba la yem sañcaane gisuñu ci seen bopp. kon loolu lépp bokk na ci li xam ne bokk na ci indi jafe-jafe président loolu laa ko leeral xamal ko ne ko opposition bi nag foofu la ñu dugg dem di fa campagne. ba nga mën fay yàqalu lu baree bari kon loolu noonu man loolu laa tontu président président tamit ba ñu pare tamit def nañ ci ay xalaat ak ki ñu wax ne mooy soxna Mimi mi nga xam ne moom la président jiital Mimi Touré woo dama ci waxtaan nañ ci waxtaan ngañ ci waxtaan moom la mu bëgg mooy la président bëgg ñu wax ko ko mu taxaw ci fas yéene koo saafara mook président ak les ministres ak les directeurs généraux. président nag li mu su amul lu ko gënal ministre yi nga xam ne dañoo yor li jëm ci ci côté Touba bii ak les directeurs généraux ñu góor góorgóorlu ci mën cee geesu sancaani ak ministre bi nga xam ne mooy wàllu financement jigéen ñi ak ndaw ñi ak deer ba ñu mën a góorgóorlu ba mën a jàppale waa sancaani xam nga le maire sortant xalaatoon dafa jeex nit bu sa xalaat jeexee lu ne ngay wax galo ba dépassé na ay liste man mi maa doon toog di xëccoo liste te xëccoo ma dogal galo ànd caag moom ànd naa ñoom Abdou Mbacke mënuñoo bëtt fenn Abdou Mbacke fii ma toog la yaakaar moo ko ma di falte fee ko falte fii du ko mas sa falte ci àdduna fekk sa bakkan baa ngi tooy école marché ant bii dama koy duma di ko ko duma di ko ko duma ba xëy di bàyyi politique loolu amul demul amul demul te ñëw maire sortant bi moom xal-xamam moo jeex ku nekk maire moo defal sa population dara naan ay député kooku dafa mën a dafa mën a gañ a biir këram bay bay gañ a feneen Abdou Mbacke na toogee te te noppalu bak la ma jaas xamadi la ko réew la maa ko xaman Aliou Diouf ko xamadi ko xamadi ko réew la parce que la mu def démb waru ko def police nationale pour la police nationale de tous les sénégalais bu mu jaay na moom meer la rek gagné na dakaar tax na di dem di xëccanteeg ay policiers barkam daal yoon dafa war a dal ci kawam parce que ëpp mu fit man mi man mi dox ak yow ëpp ko sama morom. waaw si dañ ko waroon a jàpp war na fanaan démb këram loolu mooy dëgg parce que Sénégal dafa am loi bu fi tëdd. man su ma fekkee fii ma toog di wax sama journal fii ma toog tey ñu ne gën seen carte dama police c'est la police dama naan coupé leen caméra yi ak dara ju mën a am doole ju mën a am diglu diglu diglu leen kaay ma jëm toppi leen parce que ñor suñu kaaraange les polices les gendarmes les magistrats yi ñu këll-këll dañ ko war a bàyyi Sonko Barthélémy Dias dañoo xamadi jàpp nañ ne ñoom seen doole ak na foo xamante ni léegi dépassé nañu sëriñ si dépassé nañu Macky Sall léegi nag ñu ngi ci armée bi léegi ak justice bi nañ politique seen mbiram politique te bàyyi justice bi fële bàyyi police bàyyi mu liggéey seen liggéey parce que démb police yi démb def nañ yar boo xamante nii bu ren beneen police bi mel ni Aliou Diouf Lambaye la ab rayante fay am démb man seetaan naa vidéo yi dañ ko fexe ba génn ko tëj tëj seen porte loolu du yoon ataa nga nekk maire Dakar aussi war ngaa def benn yow dañ laa yow da ngaa def wuti sa liste am na problème mais bindal bindal nga dem déposé fu yoon li maam di yoon wax nga topp ko mais taxaw di fippanteeg ay nit du yoon dañoo reew dañoo xamadi amuñu yar amuñu teggin waaw dañ cee war a dugal seen loxo bu baax nag ñoom ñooñu Sénégal nañu yeewu ñii la ñuy taalab dëkk. ab sàcc ndënd dong la li Abdou Mbacke doon di wax ñoom ñoo sàcc ndënd xam ne fan lañ koy tëggee Ablaye Wade xamutul lu muy wax def image lañ bëgg a naka les peuples te loolu mënta nekk El Moodu mënumaa dëkk ci etaas bii moom ko tey man Aliou Diouf dem ba màggat mënu tama dara sama sama doom ñëw ak samay sët sa taat yaa dégg muy xëcc ñoom quatrième bi mënta nekk Abdoulaye Wade Serigne Touba jox na kër fii ci Touba murid gi muy woote su dee dëgg la ca moom na ñëw àggale këram gii ci Touba toog fi aju mu jëm dem siyaare ji Serigne Touba dellu këram ñëw toog waaye politique da nga ko ci war a génn bu set wicc ku mënta am troisième mandat moo Ablaye Wade mais doo doyati ay ay ay ay ay ay liste di jaxasam réew ñu jël nit ñi di di tojal seen seen bopp yi sénégalais yeewu nañu duñ leen wote tey duñ leen wotal suba ay da mbëj sama xarit la sama mag la man de toog naa mu ne Ablaye Wade de bu doon bàyyiwu bu doon ku mu doonoon sa baay doo dugg duggalaat ci politique man ay da mbëj sama xarit la sama mag la toog naa wax loolu kon tey jii moom bu nangoo Abdoulaye mi ko dugalaat ci liste mu di ko jiite ah kon ne seet seen seen loxo démb yi dañ ko seetaat caaxaan baaxut Macky Sall daal li ma mën a xam mooy kenn mënta tee ba kenn mënta tee ba département de Mbacké bii moom dina ko gañe bu soobee yàlla ak unité bi ñoo ngi ciy liggéey man nag liste yi ma nekk ca ak ma ñàkk caa ne na ma campagne woon élection commune Mbacké ba gañe ko lu ko raw lay campagne ci élection yi ñu jëm ku mag Sall fal baax na bu falee les journalistes sax mu ànd ak ñoom Modou Mbacké Dolly am na droit dajale ñu mer waxtaan ak ñoom c'est droit am na ci plein droit daa bokk ci parti bi ki ëppale ko Macky ko ci parti bi même bu jamul ndombay tànk am na droit génn na gis na am nañu mer mu dajale waxtaan ak ñoom sëñ Modou Mbacké Dolly am na am boobu droit dem pour pour boole leen ñu daal di ñu doon benn ñu battre campagne bi président loolu loolu lañ digal digal dem nañ seen rajo xaalis di ko dem leen xëcc ci poste dane dem leen ngeen ànd yenn waa département ngeen waxtaan ngeen liggéey seet ñu mer seet ñoo xam ne nii dañoo gis seen bopp ci mbir mi te ngeen ñëw ñu fas yéene gagné ba pare doog a wax waxu poste doog a waxu ndimbal waaye booba nag li nga xam ne ni moo jëm ci sancaan yi ak commune ak onze kii nga xam ne nii kii nga xam ne moo moo moo nekk biir Touba ñu jéem a ñu euh, onze zone yi nekk biir Touba ñu jéem a xool na leen mën a jàppale ba mu leen defal ay ay ay ay financement ak ay wàllu liggéey man nag lépp lu jëm ci wàllu sancaani maa ci dox lu ma man ak Mimi di wax présenté bi na ko jayuma Mimi Touré neexuluma ko defuluma añ ma reer waaye na ko gën a jàpp parce que keroog ba ma ñëwee na ko Mimi su ma dugg ci liste bi ba problème da am lan maa wax ca këram waxu gor la Aliou Diouf demal nga liggéey liste ba boo ci nekk bu dëgg demal nga liggéey parce que loolu muy dëkk da ngaa liggéey ba am doom ak tànk bul yàq dara loolu nag tous les responsables bu fekkee ne dañuy dégg na may déggee kenn kenn du yàq liste président Macky Sall fii ci département de Mbacké sut la commune de Mbacké ak Touba asalaamaaleykum jërë ngeen